kii dañu ñëwoon man ak sama mbokk député yëpp tout bord confondu dañu ñëwoon pour teg en place benn réseau parlementaire euh, sénégalais pour la diaspora euh, certes euh, am nañ ay consul am nañ ay ambassadeur yuy toppatoo problème yi foofu mais problème yi bari na bari boo xam ne ñoom ëpp na dayo donc tey ñun dañu ñëw pour wane sañu mission aussi mooy toog ci wetu askan bi donc askan bi bu ñu soxlaa pour ay problème bu fekkee ne consul moo ko war a def wala ambassade ñu wax ko bu fekkee ne ñun ñoo war toucher peut-être le ministre ñun ñu def ko mais nag mënuñu ne dinañ régler lépp parce que problème yi bari na bare bare bare bare fu nekk nit ñi am nañu fa problème ku nekk ak li nga am comme problème parce que euh, léeg-léeg boo nee diaspora rek nit ñi defe nañ ne sax diaspora problème këyit rek la ñu am c'est pas problème mu këyit am nga yeneen problème am na ñoo xam ne yor nañ ay papier c'est-à-dire carte de séjour et tout mais am nañ ay difficulté foofu yoo xam ne il faut état sénégalais dugal ci loxoom sànq wax naa leen dëkk yu mel nii sañu mbokku naar yi dëkku Algérie Maroc tout ça bari na sénégalais yu fa ne te bari ay problème loolu il faut ñu xoolaat ko bu baax kenn newul dañuy tëb di xeex ak nit yi dañuy xeet di nit ñi mais il faut sañu mbokk yi fu ñu nekk aussi ñu war leen fa respecter